li may wax nii am na écart bu am suñu diggante et c'est normal mooy Pastef dañ koo somb pendant longtemps mu nekkoon ci position défensive ba ñun gisuloon lu dul xeex ak défendre bu ñu ko teewoon ci fànn googu kon Bassirou Diomaye Faye mii tey nekk candidat j'ai dû prendre de décisions et les ai prises seul parce que mënu woon jokkoo kenn bu ma ci ci benn rek. projet bi tey jeex na may sant yàlla c'était pas évident dañuy ci benn defe na kon toll nañu foo xam ne il faut gis les deux faces de la pièce toll nañu foo xam ne ñenn ñi élection rek lañu gisoon élection élection élection ma leen waaw dinañ dem élection waaye dañ ñoo song métital ñu nangu ñu bëri si ñun lu ma mën a def ba delloo si li ñu moomoon rek dinaa si ñun suñu parti politique ñu doon wax ex Pastef ex Pastef léegi dinañ ne Pastef tey si wuñu suñuy éligibilité ba ci sama bos man mii nga ñu taxaw ba ci opposition bi ne d'ici deux mille trente neuf Sonko du nekk candidat yàlla ne samay biir noppi naa ci bu yàgg waaye tey génnewuñu des centaines et des centaines de nos frères et sœurs qui souffrent ñi daan wax nañu toog bu ñu gagné qu'est-ce qui vous garantit qu'est-ce qui vous dinañu gagné waaw par excellence suñu gagné xam ngeen ni ku fi jëkk toog la may njëkk def mooy liggéey bii gars yi mu yeggale ko kon maag Basirou mii dix ans la ñuy jël parti bi ñu seeyal ko projet bi jeex loolu yëpp parce que on voulait faire un fétichisme des élections j'ai dit non dinañu dem ci élection yi bu soobee yàlla peut-être ñu wax loolu xamuñu man de prison bi ma ne woon suite lañ ma ko jox suite chambre salon double climatiseur télévision yi fa ñëw gis nañu maam sama gaddim këru 300 mètres carrés di doxantu teg fa sama vélo di pédale waaye est-ce que xam ngeen ni président Diomaye bi pendant 11 ans 11 mois 9 mètres carrés de woon ñu boole ko yeneen ñaari nit xam ngeen condition yi mu nekkee woon jooyu ko fenn mais est est-ce que xam ngeen ni li ëpp ci suñuy xale yi ñu ngi woon ci condition yoo xam ne kenn kuñ fi tegoon ci condition yooyu boo matul ci prison suñu responsabilité en tant que autorité morale mooy suñu amoon prox ndoll génne ñooñu te yàqul dara ci li ñuy liggéey nañ ko def moo tax nit boo àndeek moom léeg-léeg koy wóolu doylu ko buy def xamoo teyal ba xam rek loi d'amnistie bi coow bu ne dégg nañ muy deuxième poñ boo xam ne discuté nañ ci dañuy yow wax ma loi d'amnistie may leen soxlawu ma loi d'amnistie su leen doyee vous abandonnez les charges parce que xam ngeen ni taxawul ñu def non-lieu nit ñi ñibbi seen kër ah ñu ne dee rek ñoom loi d'amnistie lañu bëgg mais suñu defee loi d'amnistie ça nous profite waaye instruction bi ma jox suñuy député mooy bu ñu àndee loi d'amnistie bi interpellé leen ministre la justice bu dee léeg-léeg li bokk na ci voté non bu dee léeg-léeg li bokk ci voté oui keroog bi ngeen dajee ci suba balaa ngeen di Birame Souleye message boobu la délivré suñuy député pourtant dégg naa ci lu nekk ñëw dañu réponse bi leerul voté nañu non teewul waa ba jàll. moo ñu andi fii ñu nekk nii tey jàkkaarloo Sénégalais di wax ak yéen kon dafa am loo xam ne dox na ci stratégie te ñu bëri xamuñu ko te merew ma ci kenn ndax fa ñu bàyyi woon pas parti bi ba ñuy jàpp peut-être foofu la ñu toll ba léegi fekk ci gis-gis ak yeneen dafa évolué ñetteel bi ñu wax mooy dialogue loolu suñu position mu ci s'est changé dañu ne woon kenn du teg. pistolet suñu bopp di ñu jaloog loo booba jamono pistolet la woon jamono jii nag bazooka la waaw naka la ñuy jamono parce que ku ñu xam ci politique bi ñu commencé ba léegi constance nañu xam ne gis ñu lu fees suñu bët moo tax nag bu ma leeralee yooyu yëpp di wax nii te li ma wax nii yëpp nag saa suñu ñëwaat ba ñu waxtaan ba noppi dama leen naan andil leen ma sama candidat ñu andil ma parce que dinañu toog de temps quatre de temps je lui fais un amul lenn lu ma mës def te waxuma ko moo ko waxee ba noppi mu wax ma lu mu xalaat ñu tënk naka la ñuy doxalee di ko des léegi nag weesu nañu loolu dañuy dellu sant yàlla ndax yàlla desal ñu dara de ëllëg bu ñu bindee suñu mémoire lu bëri nañ ko xam ndax ajul fii mbir mi moo raw film film ko koy ajul fii de waaye dinañ ci yegg si ñu war a dëgmal nag lu am solo muy élection bi mbokk yi élection bii dañ koy gagné incha allah. bis ni ki tey bu ñu jógee fii discours amatul futtiku ëllëg ñu nga bëgg a yeewu ji Ziguinchor bu soobee yàlla daal di campagne may lancé appel nag Sénégalais yi xam nañ ni bëgg ngeen ñu lool xiif ngeen ñu lool waaye na ngeen ñu comprendre sept jours de campagne lépp xaju si di leen koy ñaan rek ku ñu jaarul goxam bu mu mer ku ñu taxawul goxam romb rapidement bu mu mer parce que élection boo amee 20 jours sax mënoo def le Sénégal waxuma laa léegi ñu dese la 7 jours te génnaguñu Dakar militants yi xamante nañu léeg-léeg ñi ñuy def ko affaire sama koñ sama dëkk déedéet ñun gagné la bëgg d'abord kon bu dee ay candidat ñoo mën a ñëw toog fii bàyyi seen dëkk ñëw toog fii mënoon nañ ne man sama candidat bopp la maa ngi dem kon kenn ku nekk na xam ni patriotisme bi ñuy wax fii la war a feeñee. na doon campagne bu méttee méttee métti caravane la ñu mën a def dañuy traversé rek waaye luñ ci mën def rek dinañ ko ci def mais ñuy ñaan ñëpp di daan am ci ñu ci campagne yi dañu war a jaar gis itinéraire bi pourquoi def ñu nii mer naa gedd naa di tax ñëw ñu sama dëkk di tax wàcc ñu nuyu kilifa gi suñu amoon sa sañ loolu lépp nañ ko def mais su mënul nekk rek lu mënul nekk rek nañ ñu ko nangul te bu mu tax bu mu bu mu tee ñu gën a takk nit yi parce que avenir u Sénégal la du affaire nit du affaire koñ du affaire dëkk ñaareel bi mooy dama bëgg nit ñi bu ñu waxati sax lu jëm ci Macky Sall on de combat Macky Sall bi mu ne man doot nekkatuma candidat dañu pare moom du suñu adversaire waaye am na lu gën a garaaw fuuf mooy candidat wu Macky Sall bu yàlla ñàkkee bëgg Sénégal dëgg dëgg dëgg rek na ko jox xamul wallaahi yéen xam ngeen dama Sénégal yi question bi ñu waroon posé rek mooy simple fonctionnaire nu mu mënee yor alal gi yépp loolu rek jar na bañ a woteel ko maag moom ak kii ñoo bokk liggéey wax dëgg yàlla ñun amuñu dara wala am nañ tuuti waaw fan la milliard amul bay jóge est-ce que Sénégal dañuy poser question boobu kon loolu rek doy na ñu kii man waroon mën a nekk président réew. vous savez man bëgguma ñu dugg ci débat de personne dégg naa ñi naan dëkk sàngam la jógee du Sénégal déedéet Sénégalais la fii la juddoo jàngee fi am nationalité def fi tout sa toute sa classe du Sénégalais rek gënuma koo nekk Sénégalais. këy ñëpp jógee ci dëkk yooyu gis nga Sénégal dëkku teranga la ay panafricain ay sénégalais ngi dund feneen ñenn ngi dund fii ku ñëw jaar fi mu war a jaar am kayitam Sénégal la ñun ñëpp bu ñu stigmatiser kenn bu ñu stigmatiser kenn loolu baaxul suñuy natt dañu wax kii est-ce ay loxoom set na est bëgg na réew mi est-ce am na compétence yi leen nag première question bi tontu naa ci ba noppi ñaareel mooy bis bu ko joxee réew mi dénk nañu réew mi waa bitim réew xam nga ci samay série vidéo yi ma defoon am na yenn ñaari yu waroon génn waaye jaratu ko benn bi ci moom laa ko defoon ñi ko gis-gis nañ ko benn bi ci moom laa ko defoon spécialement mu ngi wër nag di wax yor la meñam di wax nee na ñu ngi lay attaqué bukki nag bu yobee waxambaana Amadou Ba mënu ñoo yàpp de ndax dañoo bokk liggéey yàgg naa jël lu mu warul jël mën a ko tegal suuf eh.